dal di nag jàmm bu weesoo matuwaay yi nga xam ne dañu koy jël ngir tàngoor gi bañ ñoo sonal lépp lu baw ci kër docteur te nekk xeetu tegtal war nañu ko topp ngir tàngoor gi bañ ñoo jural ay lorange bokk na ci di naan ndox te bañ a xaar ba mar di féexlu tamit di xëpp ndox suñu kaw di lekk ba suur te di privilégier légumes yi di moytu tamit naaj bi lu bëree bëri ak it di naan sàngara ci jamono tàngoor gi loolee di ay tegtal yoo xam ne ñépp ci askan wi lañu koy jagleel rawatina xam ne dañuy dund ak yenn feebar yi bu ñu sukkandikoo ci docteur bu gisee nekk ci service national d'éducation et d'information pour la santé. gis nañ ne fan yi dafa tàng lool. Eh, ci réew mi eh, ci gox yëpp ci réew mi eh, rawatina ay ndakaaru njaay ak yenn gox gox yi ndax véritablement dañu nekk ci nawet ba pare taw bi bareegul lool ah comme niñ koy xaare ba tax na daal euh, li ñuy ñaax askan bi mooy képp ku doon rawatina nag mag ñi rawatina xale yi rawatina nag jigéen ñu wérul yi ak ñi nga xam ne dañuy euh, dëkkaale ak ay feebar euh, def seen kéemtalaay kàttan bàyyi xel ci yii nga xam ne moom lay lim muy di naan lu bare ba pare nag bañ a xaar Euh, ba ba ba mar rek soog naan man damay wax souvent ne Sénégal euh, li ñu fi gën a nemmeeku mooy nit ñi dañuy mar soog a naan alors que nit ki war naa naan lu toll ci litre ak genn wàll jàpp ñaari litre bés bu nu yàlla sàkk donc bu ñu xaar mar di naan nañuy yor seen butéelu ndox di ci naan tuuti tuuti nañuy fexe aussi euh, di di tooyal seen yaram rawatina seen kanam ak seeni yoxo seeni seeni seeni ñaari loxo ñu koy tooyal léeg-léeg ah, bu fekkee ne nag mun nañ nekk nañ foo xam ne mun nañ tooyal yaram bi yëpp aussi ah lu lu lu baax la nañuy lekk ba suur ah rawatina nag eh, li nga xam ne moo jëm ci légume toujours dama koy faral di wax ah, Sénégal moom duñu lekk légume lu bare légume nañ koy lekk lu doy doy doy ah fexe aussi di des eh, di toog ci kër yi bañ di génn toujours ci naaj naam boo fekkee ne da nga am ay activité mën ngaa génn ci naaj waaye nag li ci ëpp solo mooy tant que mun naa nekk na nga toog ci ci ci kër euh, mooy tondiku nag bu baax di naan euh, sangara parce que loolu tamit dafay eh, yokk déshydratation bi ci période bi. hôpital régional bu Kolda la ñu jagleel altine ab matériel d'endoscopie boo xam ne buñ ko dee xayma toll na ci fukki million ci sunuy koppar loolee nag association sénégalaise pour la promotion de l'ORL moo leen ko jagleel bëggoon jàppale service ORL bu hôpital boobile ORL mooy pàccu médecine bi nga xam ne dafay fàcc lu aju ci wàllu nopp bakkan ak put cérémonie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 Bonjour chers auditeurs, en dehors des précautions d'ordre esthétique pour contrer la chaleur, les conseils hygiéno-diététiques sont également à prendre en compte. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir et se mouiller le corps, manger en quantité suffisante et privilégier les fruits et légumes, rester le plus souvent à l'ombre et éviter l'alcool, des conseils qui s'adressent à tous et plus particulièrement aux personnes vulnérables. Docteur Ibou Guissé du SNEPS que Et quand il y a une forte canicule, véritablement, l'organisme aussi s'adapte. Hein? Il y a des mécanismes de thermorégulation qui permettent véritablement à l'organisme de compenser l'augmentation de la chaleur. Et ce que nous conseillons à l'ensemble de la population sénégalaise en cette période de forte canicule en, en, général et en particulier les personnes âgées, les personnes vivant avec des comorbidités, les enfants, les femmes enceintes, c'est véritablement de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir ça. Et comme je le dis souvent, ici au Sénégal, les gens attendent toujours d'avoir ça pour boire de l'eau. Alors qu'il est conseillé de boire au moins par jour un litre 50 à 2 litres euh, d'eau par jour. Se rafraîchir et se mouiller le corps, surtout le visage et les avant-bras. Manger en quantité suffisante et privilégier les légumes. Ici au Sénégal, on ne consomme pas beaucoup de légumes. Il faut privilégier les légumes et manger en quantité suffisante. Et rester aussi le plus souvent à l'ombre et éviter de boire beaucoup d'alcool. Voilà un peu ce que nous pouvons conseiller aux populations pour se protéger Euh, et éviter véritablement les complications hein, telles que les coups de chaleur et la déshydratation. L'hôpital régional de colda a reçu lundi un lot de matériel d'endoscopie estimé à une dizaine de millions de francs CFA. En effet, l'association sénégalaise pour la promotion de l'ORL a voulu bien équiper le service ORL de l'hôpital régional de Kolda, une partie de la médecine qui s'occupe des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge. La cérémonie de remise a eu lieu dans la structure hospitalière en présence des autorités et du personnel de l'hôpital. C'est tout de nous